aleykum wa rahmatullah man la Moussa Yade man euh, maa maay wax ak yéen man maay secretaire général daayira Asxaabul Janna bu Touba Combooñ euh, léegi nag euh, gannaaw bi ñu rafetloo seen taxawaay bi ci teew bi ngeen teew ci sunu gàmm gi nga xam ni gàmm gu yàgg la ci cosaan ndax gàmm gi man nañ ni digal la loo xam ne ñu ngi ko jëlee woon ci Serigne Touba ndax Serigne Saint loo mi nga xam ne yàlla dogal na moo sanc dëkk bi mm, te mu fekki woon Serigne Touba gànnaar mm, te booba mu tuddoon Massaër Lo mu soppi tur wa tudde ko Saïd te Saïd mooy ko texe sëriñ Touba ni ko yaay Saïd aji dund yi texee ngi nii boole ca wax ni ku mu ree mu texe kookee moo sancan dëkk bi dëkk bi Touba Comboñ la tudd Comboñ it tur wi wu cosaan la ndax boo koy seet euh, ñu bari nee na wax nañu ni ci histoire bi daal ci alxuraan la jóge muy ñetti tomb yooyu nga xam ne ñenn ñi dañ koy wax cuun ñenn ñi naa ko saa kenn kenn ku ne am lu mu koy wax waaw ñu combo comboñ am ñu koy tekkee combo ñu ni loolu mooy cosaan tur bi moom la moo mooy cosaan tur euh, bi bi ko sancee nag ginnaaw bi mu jógee fii dem dëkk bu ñuy wax Serif Lo mu sanc ko fekk Serigne Touba ca gànnaar fa la ko tuddee woon it muy aji texe juy dund moo ko joxoon bis bi nga xam ne mooy sunu bisub tey bii muy gàmmu ndax Serigne Touba daa fonkan yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg ko Euh, di di di di di taxawal sunnaam ba taxan mu taxawal bisub gàmmu da ko daan gàmmu mu daan ko def ci bisub mawlid bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi nga xamante ne yàlla dogal na Serigne Seye nekk fi di ko taxawal ba ab taawam di Serigne Moustapha Lo nga xam ni moo ko dëleen ci dëkk bi ba mu nekkee Serigne Lo moo ko indiwaat ci dëkk bii di Touba Thiombogne mu nekkal ko fi bi nga xamante ni Serigne Moustapha Lo moom mu nag wóot na fi waajuram boobu di sëñ Seye Lo moom itam mu continué bis boobee Serigne Touba joxoon Seydou Lo sëñ Seydou Lo mooy mu di ko taxawal muy sunu gàmm gii mu daan nekk ci bisu mawlit bi bi dem di dem di dem di dem nag ba Serigne Moustapha Lo Serigne Abdou woo ko Touba téye ko fa la daal fab mbirum gàmm gi moom teg ko ci doom ci loxo doomam bu ñuy wax Serigne Mbacké Lo nga xam ni daaw la wàccu liggéey ba Serigne Cheikh Lo mi fi nekk actuellement euh, wóotu ko jëlee ko ci moom bi fi bake Mbacké nekkee nag te bëgg mbir mi mu gën a jëm kanam la xam ne euh, bisub gàmm bi Tiwaawan ñu bari fa la ñuy dem muy seet ni bu mbool bu bis ñëwee mbooloo mi day yaraax euh, te mu bëgg nag bu sañan mbir mi day yokk mu laaj waajuram woowee di sëñ Moustapha Lo ni ko damaa bëgg léegi bis bi su fekkee am naa ci ndigal ma def ko bis bu delsi waaye ba mu ko defee bis bu delsi mu gis ni day daje Njaasaan mu xam ni kon la mu ca doon euh, bañ ba léegi mi ngi ci mu ni mu delluwaat wax sëriñ bi ni ko damaa bëgg daal bis bi ma toxalaat ko mu daan ko def ñaar fukki fan ak juróom-ñett mu euh, méngale ko xorofi arabi euh, arafi Touba ba mu demee loolu mu di ko jàpp loolu mu ñëw ni sëriñ bi daal comme dama bëgg mu yaatu te ay kilifa da ci ñëw ah, te ñu ci bari dañuy yore liggéey boo xamante ni liggéey bu aju ci gouvernement bi la te yenn bis yi bu ñëwee euh, du ñu mën a toog ndax war a xëy liggéey damaa bëggan di ko def bisu samedi mun ko bis boo ko mën a def te bisul ba gën te génnul gàmm rek ànd naa caa yow. sëñ bi di ko jàpp ci bis bi nga xam ne samedi bi nga xam ne moo mujj ci euh, rabiul awal di weeru di weeru gàmm moo tax euh, bi nu ko dalee def nag yàgg na ndax wax naa la ni ndigal li ci sëñ sëñ sëñ sëñ Touba la jóge woon ñëw ci sëñ Sayid Lo gannaaw ba sëriñ Moustapha Lo di ko doxal ba moom yàgg na moom gis naa ci édition yi daaw yi sax ñu def ko quarante quarante deuxième euh, édition waaye xam naa ne loolu ki ko def daa tandaat rek waaye ëpp na ko moom ëpp na ko moom waaw dëkk bi nag waaw dëkk bi nag jafe-jafe yi fi fiy wax dëgg yàlla am na jafe-jafe yoo xamante ni yu xaw a bari la ndax bokk na ci jafe-jafe yi boo xoolee dëkk bi nii ci jëm yéen ñi ko gis di ngeen xam ne dëkk bi réyul dëkk bu tuuti la mais jëmmi dëkk bi moo tuut waaye nag dafa yaatu ginnaaw ndax sëriñ bi njaboot ñi mu jaboote ñu di ay taalibe yoo xam ne ñoo nekk ci ginnaawam macha allah sakkan nañu te bu bis bi ñëwee ñoom ñëppay ñëw te bu ñëwee ah dañuy day laaj fu ñu leen dalal ah laaj lu ñu leen terale ak yeneen ak yeneen kon bu nu sañan daal lépp lu ñu mën a dimbalee ci dëkk bi ah ci gën yaatoom ak gën a dolli koom loola dañ koy soxla waaye boo xoolee dëkk bi itam dëkkub kilifa la kon lu mel ni poste de santé buñ ko mën a na am dinañ ko fi soxla ndax dëkkub kilifa la te wax dëgg yàlla mérito na ko ndax ay ak njabootam laaj na ko ah ñi nga xamante ni ñooy dëkkaaleem wër ko itam laaj na ko ah ñàkk poste de santé bi ban gàllankoor la. de santé bi gàllankoor gi mu mën a indi mooy xam nga tey ji man ngaa dem ba guddi mu guddi lool nga gis jigéen joo xam ne daa jàpp lu demee ni ki loolu jàpp war a euh, yëg boppam di matoog yi demee noonu nga war ko yóbbu pour euh, mu dem ca euh, poste de sante ba mu xawlaa sori wala même bu la soriwul wasi la woo xam ne da koy jël pour mu man laa daal di yóbbu xaw ja jafe. nun malade bu am na nga yóbbu mbir wax dëgg yàlla mu ka nga xam ne moo fa nekk itam di koo xam ne macha allah euh, fii ak moom 3 kilomètres la waaw moom soriwul lool wax dëgg yàlla 3 kilomètres la waaw 3 kilomètres suñu diggante euh, Médina 3 kilomètres la. waaw yoon wi ci bi ci des itam loolu ba te gis ngeen ko yoon wi bi ngeen di ñëw xam ngeen ne oto yi fi jaar yëpp dañ leen di puus te dara warulu ko lu may yoon wu des yi kon ku nu dimbali woon ci yoon wi itam ba man koo defar ba mu woyof ba bu fi wata jaaratee du patine loola dinañ ko soxla. loolu wax dëgg yàlla soxla nañ ko ci dëkk bi ndox moom forage bi ma nga pële ma nga fële ci lóor boo baax na gaa waaye nag buñ ñu ko mën a na yokkalit ñu jël ndax doyul population bi ndax daanan fi toll ay jamono yoo xam ni dañuy dem ba euh, day am heure yoo xam ne day am euh, euh, ligne yoo xam ne dañ koy ubbil ñenn ñi yeneen ci des ñu tëj ko pour ñi mën a am ndox boo xawee féex tuuti ñu ubbil ñeneen ñu root te loolu waaw wàllum xale yi wax dëgg yàlla ñoom itam seenum njàng mi ngi développé ndànk-ndànk parce que fi ne am na ay xale yoo xam ne ña nga cité di jàng am na xale yoo xamante ni ñi ngi CM Mérina bi am ñoo xam ña nga ca lycée bu ngaay ba di jàng am na ñoo xam ne ñu ngi ci euh, euh, primaire bi ci gëti di jàng wax dëgg ah dëkk bi amul école primaire dëkk bi amul école primaire école primaire amu fi waaye nag dëkk bii nu jigee muy gëti foofu la école bi nekk fi la xale yi di jànge buñ fi jógee dem euh, CM Mérina Dakhar jànge fa waaye buñ fa jógee itam buñ demee ngaay toujours dañuy daje dañuy am ay difficulté parce que jafe-jafe ñi mooy a ah, léegi-léegi nga jóge fii xam nga dëkk bu ndaw bi toujours ñëpp ay mbok la ñuy doon soo leen jëlee yoon fii tey ñu war a dem ngaay di jànge lycée boo demee daanaka kii euh, fa muy xalaat ni fa lay war a dalal doomam man mii moom lay xalaat keneen xalaat ko ndax yenn mbokk yi la su ko indi kon su fekkoon ne daal Médina gi mën nañoo dimbali ba mu am lycée ndax moom fii waxuma ko ndax fu amagul école élémentaire moom kenn waxul ab lycée waaye bu Médina aman lycée moom kon wax dëgg yàlla nga xam ne bu ñu defee jàngee seen euh, CM ba pare war a continuer foofu lycée dinañ noppal loolu moom bëgg nañ ko loolu daal bëgg nañ ko ci jàppale. waaw bu ma amoon yóbbante bu ma yóbbante nguur gi daal nga xam ne bu ma ko yóbbantee dina àgg ba ca président de la république lin koy waxal mooy nanu dimbali ci nu am ay moyens ak possibilité yoo xamante ni nii sunu doom yi dinañ mën a jàng di àggal seenum jàng ak euh, dimbali nu ci yoon woo xamante nii ku jógantey di ñëw ci ñëw ci dëkk bi ñëw gi dina yomb waaye dimbali nu ba nu am ndox moo xam ni waxuñu lu nuy naan waaye nu am ndox moo xam ni benn xale dootu jóge fii di déplacer dem ca taax ya di fa lëjlee ka xatal ndax xale yi fi jóge di fi jógee di dem ca taax ya ñëpp bu nooree bu nawetee dañuy ñibbi si bay ca tool ya xam nga kii nawet ñëw mu ñëw jënd aw jiwoom di bay mbay moo xamante ni amaana sax mu dem comme ni mu demee ren nga dem ba ci dernier moment tawatul ah, ta ah, mbir ma yam fa te te bu ëllëgee nga nga bayaat kooku yaakaar naa ne bu aman ndox moo xamante ni da ci mën a bay roon ah, ab noor kon dina ko bay poste de santé bi itam kasaalika moom itam ñu jàppaleenu ci ndax wax dëgg yàlla jigéen ñi fi nekk macha allah yitte woo nañ ko lool damaa jëlee góor ñi waaye jigéen ñi ñoo ko gën a yitte wo kon loolu kun ci dimbali moom itam ah dinañ ko bëgg waaw yooyu daal bokk na ci message yi nga xam ne bu ma doon jàllale yooyu moom dinaa ko ko soxla waa ak loo xam euh, de Thiombogne euh, même si je suis à Dakar alors euh, en résumé mbay ce qu'a dit le secrétaire général du Daïra c'est juste de de de remercier d'abord euh, tous ceux qui sont sont venus euh, participer à à cette à ce Gamou annuel édition 2016 il a aussi parlé en fait nous avions voulu aussi lancer comme message général Euh, c'est d'abord de remercier l'État. Tchombogne n'avait pas de courant, aujourd'hui on en a, c'est très bien. Nous remercions très bien ah à ce niveau-là, Azer et l'entreprise SS2E. E. Mhm. Euh, aujourd'hui, vous voyez que le village est un peu éclairé. Il y a de l'eau, mais comme il l'a dit, l'eau est insuffisante. Nous voudrions que le seul forage qui existe ici et qui polarise une centaine de villages, que, que ce forage soit en fait renforcé afin que ça puisse alimenter correctement euh, le village, pour les villages pour que les gens aller travailler les terres. Il y a beaucoup de terres ici, mais le seul problème, c'est qu'il y a un problème d'eau. Autre chose qu'il a dit, c'est que le village voudrait un poste de santé dans, le sens où le seul poste de santé qui polarise aussi tout, tout, toute la commune de Mérien Dakar se situe à Mérien Dakar. Les gens se déplacent la nuit avec les accouchements et tout ça. Donc nous voudrions que l'État nous aide à quand même mettre en place un poste de santé ici à Tchombogne afin qu'on puisse prendre en charge les besoins sanitaires des villageois. Bon, nous voudrions remercier encore une fois les, autorités aussi, bon, euh, la commune de Mérendakar, le sous-préfet de Mérendakar, l'État du Sénégal avec euh, l'avènement de l'électricité. Mais nous voudrions aussi solliciter l'État à puissent arriver à avoir des accompagnements pour aller vers des activités génératrices de revenus qui de, de, de, de, subvenir à leurs besoins. Donc en gros, voilà les, les besoins de Tchombogne. Oui, oui, entre Tchombogne et, et la route, c'est juste euh, moins d'un kilomètre. Mais le problème, c'est que c'est sablonneux. les, les voitures s'enlisent souvent. Pas simplement, euh, en venant au Gamou, vous voyez, tout de suite, Mbaïsam avec sa voiture a eu des soucis. simplement, bon, y a beaucoup de sable. Nous voudrions que l'État nous mette, avec le PUDC, qu'on nous mette aussi euh, qu'on euh, une piste latérite qui nous permettra. Pour les infrastructures pour... scolaires également. Oui, oui pour, pour, le scolaire, y, a pas, il des problèmes. C'est vrai, le lycée de Mère Dakar, collège qui est là à Mérina Dakar. Dakar, le collège Polarus aussi, toute la commune, beaucoup de villages. Bon, pour les enfants issus de ces villages travaillent. Nous voudrions que l'État euh, nous appuie avec un lycée afin que nos enfants qui se déplacent jusqu'à Ngaïmekhé, à Tiwaon, qui restent ici, qui continuent jusqu'au bac et puis voilà. Bon, nous n'avons pas d'école, une école primaire ici. Elle est une école élémentaire à Tchombogne, mais au moins la seule école qui existe est à d'un kilomètre. Ce pas un problème réel, mais nous souhaiterions le directeur des constructions scolaires, M. Daoud Ndiaye, qu'il nous mette un lycée, enfin, qu'il nous, qu nous aide à construire un lycée à Mérendakar afin que nos enfants restent jusqu'à le bac avant de sortir. Voilà les messages que nous, que